jaarale ko ci soxna Maawa Fadilu mi nga xam ne moo ko jaboote tam nekk ci sunu borom di ko sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal sunu borom defal ko gudd fan gu ànd ak wér moom njabootam yëpp ak i bokkam di nuyu Cheikh Abdou Baraka di ko teg di ko jaar soxna Maawa itam mu jot na ko fu njabootu sëñ Fall nekk di am mbégte nag di sànni kàddu kàddu yi seere rek ci jëmm ju baax jooju nga xam ni mooy Cheikh Mamadou Fadal di doom ci wala taalibe ci Cheikh Ahmadou Bamba ndax moom loolu la bëgg nga xam ni sëriñ bi mooy waajuram mooy ndijaayam mooy sëriñam muy jëmm ju gore ju mën a muñ te tabe nga xam ni 1888 la gën a àddina di koo xam ne itam ku xam na ak mën a muñam koo xam ne da ngay sag muñ suuf rek nga koy tëkkaleel moom nga ñee ci mën a muñ kon xam nga ne mën ngaa muñ ndax suuf lu ne dañ koy teg ci kawam waaye doo dégg mu jàmbat sëñ Fallu noonu la meloon di ko bari njëriñ tamit nag koo xam ne li mu am lépp da ko bokk ak ñu mu bokkal sëñ Tuubaa ko defee li mu ko mu nekk sëñ di ko am njariñ di nekk saa bi laa dara li njariñ lu ànd ak lor mooy sëñ Fallu moo tax nit ñi bëgg ko ñëpp bëgg ko batale bi sëñ Tuubaa moo nekkoon yitteem muy jumaa ji liggéey gi mu jumaa ji kéemtaan la waaye du man ndax koo xam ne yàgg julli yéen ñëwandoo ci kaw suuf muy yoon kasu boobu nga xam ne ci la yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci la woowoon ci la ci la ko suñu jox ko julli bis boobu la sëñ Fallou gane àddina moo tax muy imaam xalifa bu nekk ba noppi nekk imaam di tabax juma di ko jiite sëñ Fallou la doore di jëmm joo xam ne ñëpp a ko nangul li gën a jafe bokk yëpp a ko nangul ñi bokk sëñ Tuubaa ñëpp ñëpp ñëpp dañ koo nangul def ko kilifa def ko sëriñ def ko mag sëñ Fall daal moom ci gàttal lu ñuy xool ci ngëneel lu ñuy xool ci nit ku mat lu ñuy xool ci nit ku baax lu ñuy xool ci bo ci ci ci ci nitug yàlla daa nekk ci moom moo tax mu mat kamaal gi ci boppam xam nga <laughs> bala ngaa nekk euh, imaam da ngay da ngay da ngay nekk kamaal sëñ Fall nag day kamaal euh, moo tax mu mat imaam xalifa la imaam la mm-hmm. loolu nag yombut aj na màkka tamit sarti islam yëpp daf koo matale tarafetal koy tamit hmm? waaw sarti taalibi yëpp mu matal ko tarafet ko sarti julli yëpp matal ko tarafet ko sarti gor yëpp ko tarafet ko sarti taalibi yëpp matale ko tarafet ko boobu mu am nag moo jëfe moo jafe la sëñ Tuubaa ne woon la ne fa mu tegoon tànkam mu jéem faa teg tànkam ndax dañ sëñ daa daa doon roy moom koo bëgg di moom rek roy ko bu yàggee ngay moom sëñ Fall nag dafa roy sëñ Tuubaa bu doon sëñ Tuubaa saanafin bi laa dara ji rek doon gàttal na ci tariixa yëpp la amoon xalaax boo demee ñiseen sayxul islam baa ñës xaritama gis nga photo yi ñu ànd boo demee Tiwaawan ay bokkam lañ El Hadj Abdou bokkam doomu ndey ma xaritama kuy kuy kuy kuy am xalaax ak ak ak chrétien yi kay damaa jéeréel nag sa bokki sa bokki nii ak ñi nga bokk réew ah waaw donc kon am relation chrétien ak ñi lu jullit bokk réew ak ak ñi ak ñi bokkul xam nga mën a jariñe ak di jariñe dafa yombut am na ñoo yoo xam ne yor nañ te mën ñoo jariñ nit ndax li ñu yor da leen gënal seen bopp alal bu la gënal sa bopp nga teg ko si da nga koy bàyyi doon rek wala nga def ko neen noo xam ma lay di taali waaye sëñ Fallou yor na xilaaf ak sëñ Touba gi vingt deux cent vingt trois cent bàyyi fi ay kër bayu fi auto bayu fi alal ngërëmul yàlla baye ak njabootam. ngërëmul yàlla rek. te ridwaanillaahi nak mo gëna kawe lépp. motax njabotam duñ sonn ba mukk ndax lim lëggéeyal sëñ Tuubaa lëggéeyal ko islaam lëggéeyal ko réew buñ fayee bor am njaboot Fall duñ tumarank mukk ba faaw. xam nga yërmande du tee nga rey xar. du tee nga rey du tee nga rey ganaar yonent bi da mooy mooy nabi rahma waaye day rendi day xeex di rendi docteur bu la yërëmee gis ne am nga am nga am nga feebar suukar sa loxo ñu war a dagg loxo bi bu dee yërmaande bañ a dagg sa loxo da lay rey na ko dagg ngir nga wér. wex ak sëñ Fall foofu la demee loo ci gis rek noonu la demee bëgg a jeeñ nit ñi <laughs> waaw lu ci wex ba bi Senghor waxee fii nii diine yëpp benn la ci yàlla dafa ne waxoo dëgg inna diina hindallahi islam bañ googu nag moo war a am ba na diina jën la te mooy ju yàlla ji kon waxu sëñ Fallou bu amee wax ci bañ lu bon lay doon ak bëgg lu baax wax nga ko sànq yërmaane kuñ fi mas a jàpp mu ni maa ko moom ba bañ bàyyi ko hmm? mu ni waa ji nag boo ko defati kat nangam nangam hmm. loolu mu yërmaane jikkoom la yore woon yoon wi jikkoom la yore woon réew jikkoom la ànde woon ak nit ñi te loolu mooy makaarimul axlaax waaw fi mu toll nii ndaw ñi ñoo gën a bëgg mag ñi ñun ñu jamontee nga xale yi leen gën a bëgg te xamuñu sëñ Fallu waaye yërmandeem ak njëriñam ak tëbb gi mu tëbbu ci biir sëñ Touba te sëñ Touba jeex ci yonante bi sallallahu alayhi wa moo tax ku tëbb ci barkab sëñ Fallu suñ borom faj sa yaaju sëñ Fallu moom dama lépp a marqué lépp masaf dara am sa <laughs> lépp ma marqué sëñ Fallou xam-xam ba marqué na ma ci bu wér wér wér dégg dégg arab gisoo maa ngi koy nele sàng ci ci ci ci xiyat dunya wa yow ma neex la marché yi mu defal maam moo ja xiyat dunya wa insarat ka yow man fa inal xusna aqibatu surur kooku moo xam jamono ne na noonu la baaxoo su la bëggalee tey ëllëg xamal yi moo ci topp moo tax li masa yor ci yàlla la ko yàlla yàlla la ko jeexal ndax xam ne dana fi jóge te eh, la mu bëgg a yóbbaale mooy lu baax mooy luy jëriñ mooy la ko bàyyi mu bàyyi woon sëñ ko mere yaa sikk ko bañ yaa sikk noonu yaa mën ngaa wax ne koo bañ sëñ Tuubaa nga bañ te ko bañ sëñ Tuubaa yonent bi nga bañ te ko bañ yonent bi yàlla nga bañ te booba ëllëg dalay ëllëg am na mag moo xam ni eh, Thierno Fall moom la ko nettali te moom la ko sëñ Abdou doon laaj ne ko Thierno Fall est-ce que xamante nga ndax xam nga ñi doon noonu sëñ Fall ñu ne ci dëkk bi di yàq di di di yàq ci dara bi loolu noona ak di ko noonu ñu ci des ci kaw suuf ñoo fi ne muy lim. ku dee ne diw dee na ku ne diw dee na ku dee mu ne mu ne ko ñii dee ñoo tax ñuy dund. ndax sëñ Fallu suuf la te koo lekk du rees. gis nga ñii des di ko fi de yàq dem laq-laqaat ba dee dem sawar rek wal koy sëñ Fall moo tax ku ko noonu ku ne gisuma la mbaaw yàlla na ko yàlla fayal daal te taas na ci barkeem nit ñi nag moom dañuy li leen gën a intéressé sëñ Fall mooy wilaaya gi waaye loolu dërte waxtaane ku sëñ Tuubaa jur am nga wilaaya rawatina nag nga nga nga jaar ci yoonu ba doon ko njaboot sëñ Fall gépp ay taalibi lañ waaw dañoo woyof tooy bëggal seen baay bi kon nag sëñ Abo mi ko fi nekkal maa ngi ñaan saa borom dolli ko gudd fan dolli ko wér te yàggal ko ci kambaru njaboot gi mu jiite leen te njaboot gi topp ci gannaawatam saa borom dolli seen sutura ak seen teraanga ñu àndoon benn liggéey sëñ Fallu liggéey sañ Tuubaa te am ci ndam lu kawe seen jor loolu maa ngi koy ñaan ñëpp leen ko yéene tamit la bu baax a baax leen ndokkeel ci bis bi nga xam ne sunu bis ñun ñëpp ñoo ko bokk ku ma ci gis nag moo mere ndax ndaw maa ne fii ci kër soxna Maawa di ko màggal <laughs> na nga xam ne damaa bokk ci bis bi <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullah